asalaamaaleykum gars yi naa leen dal leen ak jaamu Sen Sport 221 équipe nationale bu Sénégal gannaaw bi nga xamee ne ñu ngi war a amal ay jogantey xarito wala match de préparation yi ñu war a amal avant ñuy dem ci li nga xamante ne mooy CAN bi kayiti xibaar bi mu ngi fesal ne amaan na beneen jongante gi Soudan lay doon Soudan mooy équipe boo xam ne jamono yi day sàkku football ak Sénégal balaa ñuy dem ci li nga xamante ne mooy CAN boobu xam nga ay fan ci ginnaaw waxoon nañu leen fii ne Sénégal war na amal match amical seen diggante ak ñii di waa Rwanda gannaaw bi nga xam ne ci Rwanda googu la sax fa la ñuy defee li nga xamante ne mooy seeni wàccaay ñu war a jouer ak ñoom benn match boo xamante ni match préparation lay doon geneen jogante gi nga xamante ni nag kayiti xibaar yi fisal nañu ne amaana dina xew mooy diggante Sénégal ak Soudan Soudan daal mu ngi sàkku football ak Sénégal ñoom li ñuy xaar rek ci jamono yi mooy Sénégal dal di leen jox li nga xamante ne mooy green light maanaam feu vert ci kaw loolu ñoom dinañu jouer contre Sénégal muy doon beneen jongante goo xam ne dégg nga gaynde yi war nañu ko amal balaa ñuy dem ci kan boobu la amagul dara lu confirmé ci mbir moomu ñu ngi xaar ñi nga xamante ñoo def fédération bi ñu jox leen seen accord ci kaw loolu Sénégal dina mën a jouer contre Soudan mu nekk ñaareelu jongante gi nga xamante ni war nañu ko am avant ñuy dem ci kan boobu Sénégal nag war a dem fi nga xamante ne mooy Cameroun la 7 bu ñu jógee Rwanda la 7 janvier la ñuy dem fële ca Cameroun ñaari fan balaa ñuy tàmbali li nga xamante ne mooy CAN bi ndax kat ñoom seen match bu njëkk ñoom waa Sénégal ñu war nañ ko jouer le 10 contre Zimbabwe avant loolu Sénégal sax ik muy gaynde yi war nañu ñëw fi nga xamante ne mooy Ndakaaru entre le 27 wala 30 jël li nga xamante ne mooy drapeau bi ci loxoy di nga maam jiiti réew mi su ñu fa jógee nag ci la ñuy daal di dem fële nga xamante ne mooy Rwanda daal di ñaari match yooyu avant ñuy dem fële ca Cameroun kii di xibaar bi mu ngi fesal ba tey ne ki nga xamante ni mooy Aliou Cissé moom dafa pare ngir publier liste ab ñaar fukki gaynde ak juróom-benn kii di xibaar bi di la moo ko xamle ndax mu ngi xam ne ne ki nga xamante ni mooy sélectionneur bi di Aliou li mu jàpp ci jamono yi mooy am ñeenti joueurs yoo xam ne da leen di réservé ci kaw loolu ñaar fukk ak juróom-benn moom la soxla yooyu lay yóbbu bu fekkente ne am na kenn ku ci am gàllankoor avant ñuy dem ci kan bi su ko defee ci ñoo ñu lay jël ngir war a mën a remplacer waaye daal di xew mooy jamono yi buñ sukkante ko ci kayiti xibaar bi ñaar fukki gaynde ak juróom-benn kii di Aliou ci la dëgg tànkam ne moom lay yóbbu ci kan boobu buñ sukkante ci kayiti xibaar yi ba tey la ma waxoon bu njëkk laa ciy waxaat bu fekkente ne Aliou Cissé may nañu ko fanweer ci ay gaynde ngir mu yóbbu leen ci kan boobu mu yóbbu ñaar fukk ak juróom lépp lu ci xew ci boppam lay tege moom mooy responsable bu fekkente ne li nga xamante ne mooy corona bii nga xamante ne jamono yi mu ngi euh, dégg maam gàllankoor ay jogante yu mag foofu la ci Europe bu fekkente ne dal na lenn ci suñuy gaynde wala ñu am ay blessure ba ñu am problème mu bu baax ci kan boobu lépp ñu ci jëlee ki nga xamante ne mooy Aliou Cissé mooy responsable ñaar fukki gaynde ak juróom-benn la pare ngir yóbbu gannaaw bi nga xam ne ñu ngi ko may fanweeri gaynde ñeenti gaynde yi daf leen bëgg a jël teg leen comme euh, dégg maam daal di leen réserver avant ñuy dem ci li nga xamante ne mooy CAN bi bu dee am na leen lu ci xew mbaa ay gàllankoor mu dal di indi ci ñooñ daal di renforcer. ci kaw loolu kii di xibaar bi mu ngi fesal ne am na ñaar ñoo xam ne ni ay euh, dégg nga ay joueurs locaux lañu. ñoo xam ne ñu ngi footballé fii ci réew mi bokk na ci ki nga xamante ne mooy Mutaaru Balde ak ki nga xamante ne mooy Alioune Badara nga xamante ne mooy gardien bu Casa Sport nga xamante ni convoqué war nañu ko ci match yi mujj yi Sénégal doon amal moom nag ñaari gaynde yi mooy ñoo xamante ne jàpp nañu dinañ bokk ci ñooñu ñuy réservé ngir bu fekkente ne dégg nga soxla nañu euh, renfort ci li nga xamante ne mooy groupe bi avant ñu dem ci kan bi jàpp nañu ne ñoom ñaar ñooñu kenn ci ñoom dana ci bokk wala sax ñoom ñaar ñëpp waaye comme ñu leen waxoon rek la 24 muy fileeg semaine ci kanam wala bokk ay kanam loolu dina leer nak wara jouer match bu ñëk comme niñ leen ko waxé le 10 gannaaw bi nga xamné le 9 ci lañu tambali li nga xamantene moy kan bi le 10 lañu jouer match bu contre Zimbabwe buñ ci nak ñetti fan wala ñenenti fan muy dégg maam la 14 Sénégal dina jouer contre Guinée bala ñu jouer seen jonganté gu muju contre dégg maam ñi di wa Malawi bobu nak wara nek le 18 janvier bobu moy nek jonganté gu muju gu aju ci li nga xamantene moy groupe ki nga xamante ni mooy Bouna Sarr l'international sénégalais moom nag dafa dal di dégg maam def benn geste boo xamante ni ñu bari dañu koy rafetlu buuna Sarr bii nga xamante ni bii mu ñëwee ci équipe bi yàggul moom daal mu ngi xam le ne dafa daal di def li nga xamante ni benn mooy benn contact digganteem ak kii di Boubacar Camara xam nga ay fan ci ginnaaw doon nañu leen wax ni équipe nationale bu Sénégal dafa soxla ku mel ni Boubacar Camara ndax amuñu jour bu mel ni moom ndax siis la boo xamante ni ku dëgëree ni moom dégg nga amuñu ko fi bu dee Nampalys Mendy moom xam ngeen ne amul temps de jeu Boubacar Camara nag nekk jour boo xamante ni équipe yu mag a mag ñoo koy topp foofu la ci Europe dégg nga ñu ko ci équipe bi moom kii di Bouna Sarr moom nee na dal dina am li nga xamante ne mooy contact diggante ba ki nga xamante ne mooy Boubacar Camara ndax ñoom ñaar xamante nañu ñoo bokkoon nekk foofu la ci Olympique de Marseille moom nag dal dina koy xamal ne dégg nga dañu ko soxla fi nga xamante ne mooy Sénégal ñu ngi koy xaar dégg nga peuple sénégalais ñu ngi koy xaar ci li nga xamante ne mooy équipe nationale bu Sénégal nee na moom dal dina def li nga xamante ne mooy benn message boo xam ne yónne woon na ko kii di Boubacar Camara nee na loolu sax waxtaan nañ ci ak ki nga xamante ne mooy Edouard Mendy wax na Edouard Mendy li nga xamante mooy dégg nga boobu mu def dégg nga ci kaw loolu nee na moom eh, ñoom dañu bëgg li nga xamante ne mooy le meilleur joueur origine sénégalais dal di ñëw football fi nga xamante mooy Sénégal mooy bépp jour boo xamante ni daal dégg am nga ay reen fii ci Sénégal fii nga soqeekoo mbaa say parents soqeekoo fi les meilleurs dañoo bëgg ñu dal di ñëw football fii nga xamante ne mooy ci Sénégal. waaye nee na nag il faut ñu may temps ki nga xamante ne mooy Boubacar Camara ndax jamono yi dafa nekk ci jamono boo xam ne dafa nekk di xalaat dégg nga lépp lu aju ci wàllum euh, contrat bi kon il faut ñu may ko temps ngir mu xalaat ci li nga xamante ne mooy décision bi mu war a jël ndax day jouer ci Sénégal wala déet ndax jamono yi nee na Boubacar Camara dafa nekk dégg nga maam di saytu loo xam ne dafa aju ci wàllu contrat am ndax fan la war a football yi ni ki déwén waxoon nañ leen fi ñetti fan ci ginnaaw ne Boubacar Camara day jógee foofu la ci ci Olympique de Marseille dégg nga ana fan la war a jëm loolu kenn xamagu ko kii di Bouna Sarr daal dina koy wax ci jamono yi nee na il faut ñu may ko temps ndax dafa nekk ci jamono boo xam ne dafa nekk di saytu lépp lu aju ci wàllum contrat am ak avenir am mu ba tey dafa ñëwaat ci beneen daal di wax ne moom li nga xamante ne mooy kan bi daf ko yàkkamti sax mu ñëw ndax nee na kan bi benn occasion la pour moom ngir mu war a mën a li nga xamante ni moom la mën nee na ci la ci lay am li xamante ne mooy de jeu bu doy ngir jouer pour équipe nationale bu Sénégal xam ngeen ne Boubacar Kamara wala Bouna Sarr Bouna Sarr bokk bi mu ñëwee ak léegi yàggul. waaye nee na dafa soxla ngir am temps de jeu ci kaw loolu lay mën a wane dëgg-dëgg ana moom lan la mënee ak lan la mën a indi li nga xamante ne mooy équipe nationale bu Sénégal te loolu nag kan bi benn occasion la pour moom boo xam ne dina ci war a mën a wane boppam dégg ngir wan dëgg-dëgg Sénégal yi ana lan la mën ak lan la war a mën a jox li nga xamante ne mooy dëkkam bii di Sénégal. buñ jógee ci loolu ci transfert la ñuy wax ak ki nga xamante ne mooy international sénégalais bii di Bingourou Kamara xam nga Bingourou Kamara bi wowoon nañ ko fii ci équipe bi gisoon ngeen ko fi mu joué fi ay match waaye nag ñu gis ne dégg nga maam ab jam ay jamono ngi nii wowuñu ko li ko waral nag mooy jouéwul ak clubam bii di nga xamante ne mooy Strasbourg bu ba kii di Bigorou moo nekkoon gardien titulaire ak club boobu waaye gis nañu ne depuis nga xamante ne dañoo changé woon coach moom kii di Bigorou Kamara daal moom temps de jeu am dafa dal di limité jouéwul sax lañ mën a wax ak équipe boobu nga xamante ne mooy Strasbourg loolu na waral na ba kii di xibaar ñu ngi fësal ne ñu ngi séentu ne dina dem fële nga xamante ne mooy ca Belgique ndax Charleroi Charleroi moom nag ñëw bëgg a ki nga xamante mooy boobu kii di Bouguru Camara ndax kat loolu dina nekk loo xam dina ko dimbale ngir mu war a mën a dellu siwaat sax ci équipe nationale bu Sénégal ndax koo xam ne joué ak sa club xëy na doo am temps ba war a wane dëgg-dëgg li nga mën ci kaw loolu kii di Bouguru Camara séentu nañu ne dina dem Belgique mën naa am sax mu nekk ci mois janvier bii nga xamante ni mu ngi bëgg ñëw te ñu war ci ubbi li nga xamante mooy marché transfert bi ki nga xamante ni nag mooy kii di Pape Matar Sarr Pape Matar Sarr nag moom dañoo seetlu ne moom njëgam dafa dal di yokk transfer market dañoo dal di defaat seen xayma dal di yeesal li nga xamante ni mooy njëg yi ci wàllum joueur yi nga xamante ne ñu ngi football foofu la ci Europe maanaam diggante njaay meek njënd mi li ñu seetlu nag mooy kii di Pape Matar Sarr njëgam dafa yokk ndax jamono yi bu ñuy xayma li nga xamante ne moom lay jar dina toll ci 20 millions d'euros te kii di Pape Matar Sarr jàpp nañu ne lu toll ci juróom benn weer ci ginnaaw bu ñu doon xayma li nga xamante ne mooy njëgam ci fukki millions la doon toll kon nag mbir mi dafa dal di yokk lool dafa doublé li nga xamante ne mooy njëg gi mu toll woon ñaar fukki millions ci xaalisu euro moom lay jar jamono yi bu ñu li nga xamante ne mooy transfert market bi beneen joueur boo xamante ne seetlu nañu ne moom itam njëgam dafa yokk mooy kii di Cheikh Ahmad Bamba Dieng bi nga xamante ne bi mu demee foofu la ci Europe yàggul ay weer ci ginnaaw rek ñu ngi ko doon xayma ci 400000 d'euros maanaam ñeenti téeméeri junne ci xaalisu euro képp ci la njëgam doon toll léegi nag ay weer rek mu dal di yokk dem 5 millions d'euros kéiti xibaar bi fësal na ne yéegaat na ba 8 millions d'euros juróom-ñetti million ci xaalis euro la Cheikh Ahmad Bamba Dieng la di jar ci jamono yi gannaaw bi nga xamee ne ay weer képp la ci diir bu gàtt li ko waral nag mooy liggéey bu rëy ak bii yu rëy yi nga xam ne mu ngi koy dugal foofu la ci olympique de Marseille moom kii di Cheikh Ahmad Bamba Dieng jamono yi nekk joueur boo xam ne sax mooy fukkeeli joueur bi gën a seer ci équipe nationale bu Sénégal bu ñu sukkandikoo ci kayiti xibaar bi ñu ngi koy xayma mu ngi tolloo ak joueur bu mel ni Nampalys Mendy kii di Keita Baldé Alfred Gomis di ay joueurs yoo xam ne bu ñuy xool sax ay cadre lañu ci équipe nationale bu Sénégal ci diir bu gàtt rek kii di Bamba Dieng daal dina di dab jamono yi mook ñoom ñooy tolloo njëg ndax ku nekk ci ñoom ñu ngi xayma njëgam ci 8 millions d'euros ki nga xamante ni nag mooy kii di John Lopi John Lopi moom itam njëgam daal dina yéeg buñ sukkandekoo ci kayit xibaar bi ndax moom mu ngi doon toll ci 800000 d'euros maanaam juróom ñetti téeméeri junne ci xaalisu euro ci mois de juillet bi nga xamante ni moom la ñuy weesu rek loolu yàggul waaye jamono yi nag daanaka mën nañu waxe loolu dafa daal di double ndax kat benn million bu tomb genn wala muy 1,5 million d'euros moom la kii di kii di John Lopi di jar ci jamono yi la buñ sukkandekoo ci kayit xibaar yi ki nga xamante ne mooy Mohamed Salisu nekk défenseur bu ñi di waa Ghana moom nag kii di xibaar dañoo fesal ne dañ ko dal woo mu dal di lànk na du dem fi nga xamante ne mooy Ghana ngir war leen représenté ci CAN bii di ñëw xam nga CAN bi ci la ñuy xamee dëgg-dëgg africain yi ndax kat ki nga xamante ne mooy Salisu bi dafa bokk joueurs yi nga xamante ne ay cadre la ñu ci équipe bu Ghana bi waaye nag Southampton ñoom bëgguñu mu dem waaye nag moom ci bëgg-bëgg clubam boobu nga xam ne mooy Southampton daf leen ci ne mooy CAN bi moom kii di Salisu buñ